mbokk yi dañuy dem seeti ki nga xam ne nag mooy waa group Benno coalition Benno Bokk Yaakaar Ahmadou Ba ak tête de liste bi di Mohamed Abdallah Dionne ñoo dem ba Mbacké yëngal Mbacké ñu xooli ambiance bi journaliste militant sympathisant ña nga woon ca Mbacké ñu xooli dafa xew ca Mbacké ambiance salaamaaleykum du ma leen ko présenté ndax mooy sama patron di premier ministre du gouvernement Sénégal Mohamed Boun Abdallah Dionne man xam naa ne xam ngeen ma maa yor kopparu réew mi di Ahmadou Ba ministre des finances tey nag dama ne kaddu gi dañ koy jox suñu chef de liste tête de liste bi xam ne mooy Mohamed Boun Abdallah Dionne bi président yaakaar yéen waa Mbacké yéen waa Mbacké ñun kontaan nañu ci yéen président Macky Sall kontaan na ci yéen président Macky Sall gërëm na leen kii nga xam ne mooy Mohamed Boun Abdallah Dionne te nga xam ne moom la président yaakaar def ko tête de liste man mi nga xam ne maa yor kopparu réew mi dama ne Sénégal doxatul day waaxute ci naaw la jëm Abdallah Touba Mbacké ah ginnaaw ba li nuyu ñëpp xam naa ni yéen waa Mbacké da leen des ginnaaw. kii nga xam ne mooy sunu président de la république du Sénégal ñu koy wax monsieur Macky Sall dafa am yaakaar ci yéen ndax yéen waa Mbacké kuy xool jom ak fulla ak ko ci yéen fekk ko ci léegi nag ñu bëgg leen ku ne xam na ni actuellement Sénégal wax dëgg yàlla ku xam Sénégal lu démb ak Sénégal tey. Ah, may nañ ko jël lenge yi joxaat ko ko mooy assemblée nationale bii ngeen gisaat ay teg yu bees tax ay jeunes yu nangoo liggéey pour Sénégal jëm ca kanam dama ne domo ko man Amadou Ba ah. mbiye ba so ale jabon Amadou Ari dama ne dama ne dama ne dama ne dama ne am na loo xam ne Mohamed premier ministre mënu koo wax te xam na ko ah. man maa yor kopparu Sénégal man Amadou Ba dama na leen dama boo leen ñu jàppalee ba ñu gañee li nga xam ne moom mooy assemblée nationale dama ne sénégalais bu nekk di nga yëg ne am na yokkute fi nga toog ku ne xam na ne li ne fànk kenn du ko jeex xool leen autoroute bi à Touba bi ku ne xam na ni wax dëgg yàlla ñu ci def ay jéego yu am solo kon soxla wunu lenn pour ñu joxaat nu assemblée nationale pour ñu mën cee def loo xam ne wax dëgg yàlla ku xam Sénégal dund xam Sénégal tey di xam Sénégal avancé fu nekk nañu war a cuuc capet war naa dem ca Parcelles Assainies dem ci dakaar dama ñëw tey gunge le premier ministre mu ñëw léegi dañuy may journaliste yi tuuti ñu daal di ñuy poser question buñ fi jàllee dem wàcc dakaar man Amadou Ba ak Mohamed ñoo fas yéene ànd pour wane Macky Sall ka doole booloo koy def te Benno Bokk Yaakaar ah. monsieur Amadou Ba maa ngi lay nuyu baax di nuyu monsieur Boun Abdallah Dionne sama première question maa ngi koy posé monsieur le premier ministre Euh, dina wax ne la campagne bi naka ngeen fas yéene aborder campagne bi ak yéen ñi nga xam ne yéen ay daje opposants yi naka ngeen fas yéene jëflante ak ñoom mbaa di ngeen ko doxal dans les règles de l'art du am violence du am dara. Euh, am na ci loo xam ni am na ci loo xam ni yaakaaroon naa ne sax laaj ba dafa yàgg ndax ku ñu xam xam nañ ci discipline ku ñu xam xam nañ ci yar ak teggin ku ñu xam xam ni wax dëgg yàlla Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xam. ñu ne ñoom duñu ay ennemi ñoo bokk Sénégal dafa am lu ñuy wut te lu ñuy wut nag actuellement ñu ko gën a soxla ñoo leen ci gën a yey soxlawuñu ay wax li ñu soxla mooy liggéey bu wér pin ku ne xam ne ne ngeen suñuy carte kon léegi mooy dajaloo leen dem ci urne ba jël suñuy carte dugal ko ñu jotaat assemblée nationale monsieur Amadou Ba pardon monsieur Amadou Ba pardon Amadou Ba question ma lay posé mooy déjà yaa ngi taxaw ak ki nga xam ne mooy monsieur le premier ministre may wax ne bu ngeen amee victoire keroog au soir du 30. naka ngeen ko fas féete. mais dañu koy féete parce que Dakar santul Diop santul Ndiaye santul Faye santul Ba santul Sow. dama ne Dakar dañu koy defar parce que am nañ ay projet yoo xam ne Dakar ville nouveau. dañu koy yaatal noonu bu ñu ko amee man mi yor koppar bi premier ministre daa dee yi barki démb rek dugal nañ trois cent milliards yoo xam ne signature protocole d' accord bi ci kanam ministre dañ ne dama bi gën a wóor list bi nga xam ne du tas yaakaar dafay dajale yaakaar mooy liste bi nga xam ne mooy bennoo bokk yaakaar euh, léegi question bu lay posé mooy man sur la monsieur le premier ministre question bi ma lay posé mooy li ma lay laaj mooy un peu discipline un peu discipline monsieur le premier ministre question bi ma lay posé mooy dama lay laaj li ma lay laaj. man sur la liste Ferlo la euh, euh, sëñ bi nga baal ma voilà monsieur le premier ministre question bi ma lay posé déjà campagne bi commencé na. te yéen am ngeen yaakaar ma bëggoon ngeen wax ma fii ñu toll nii tembe tembe ñaata ngeen dafa gum ci wàllu xaalis ci campagne bi. Euh, am na ci loo xam ni jarul sax ñu koy wax Sénégal yëpp ñu ko dégg effectivement mais da am loo jiital si biir kàddu. muy Benno Bokk Yaakaar. képp koo xam ne yaa ngi ci Benno Bokk Yaakaar. incha allah rabbi sa yaakaar du tas. Ah! waaw léegi bu monsieur Amadou Ba léegi bu ñu leen léegi bu ñu leen gagné Dakar naka ngeen di doxale ñaan ñu ko yàlla ñaan ñu ko yàlla ñaan ñu ko yàlla ayca dama ne dama ne dama ne ngeen may ma tuuti man Amadou Ba su ma neexoon yem Dakar soo gisee ma ànd ak Mouhamed Dionne ñoo ba Mbacké dañu bokk yaakaar bokk doole pour gagner li nga xam ne mooy assemblée nationale kon bokk yaakaar mais yéen s'il vous plaît les journalistes un peu d'organisation quand ah, même. waaw journaliste Ba. question bi mooy sama dernière question. mooy li may laaj mooy. kon déjà bu ngeen gagné assemblée. looloo ne présidentielle yi di ñëw 2019 da ngeen koy gagné. incha allah incha allah incha allah rabi incha allah dama ne s'il vous li ñu bëgg mooy fexe ba Sénégal daa dee am assemblée bu dëgër. examiner projet de président Macky Sall. bu koy ci yéen ndax le premier ministre liggéey moo ko tax a jóg. te li tax a jóg premier ministre mooy fexe ba gagné. Euh, li ñu waroon wax lépp wax nañ ko. Euh, actuellement li ñu ñaax waa Mbacke mooy. xam ngeen le jour ji. le jour ji le jour ji xam ngeen ko. amoon ngeen suñuy carte électeur. dama tuuti. dama bëggoon laaj. question yi laaj ba beneen euh, ba beneen campagne. nga laajaat ko. jërëjëf jërëjëf jërëjëf.